La grève de la fin du collectif des maisons démolies de Gadaï a été transformée en un véritable intifada entre forces de l'ordre et grévistes. Les 6 hectares devenus un champ de bataille, résultat des blessés et plusieurs arrestations, dont des femmes de plus de 50 ans. On était venu pour une grève de la faim et la police s'est opposée euh, à la grève. Ils ont dit que ce site on ne le quittera pas. soit notre vie y reste, soit la situation se règle définitivement. Et la police s'est mise à nous, à nous lancer des, des, des lacrymogènes, à nous frapper avec leur, gourdin. Vraiment, c'est désolant. Je ne trouve même pas les mots pour, pour, pour, pour, les qualifier. Il y a eu deux blessés. Un blessé a été euh, constaté ici, il est là-bas. On attend l'ambulance pour, pour, euh, pour l'évacuer. Il y a une femme aussi qui s'est évanouie. Il y a blessé parce que les, les ont, lancé les sur le pied. on, on, on, a cassé son bras. Malgré la détermination des autorités, le collectif des maisons démolies d'Agadaï ne compte pas s'arrêter à si bon chemin. Il compte mener le combat jusqu'à y laisser leur vie. Maintenant, nous avons dit Doïna, parce que aussi trop c'est trop. L'État du Sénégal nous avait promis que nous allions restituer les terrains. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. ils n'ont pas euh, euh, condamné, ils n'ont pas enfermé le, le, le, promoteur. Il est là, il nous menace tous les jours. Vous avez entendu à la radio qu'il qui il va, va nous porter plainte. Dans quel pays sommes-nous Nous sommes vraiment prêts à nous donner notre vie. Ça c'est sûr, il faut le reconnaître. À c'était un véritable intifada entre les forces de l'ordre et les collectifs des maisons démolies qui voulaient entamer une grève de la faim pour réclamer leur maison. de frappe de la faim bi nga xam ne collectifu gàddaay mbébétu nañ ko li nu mel mu jiwul antu lu ko waral di takk der yi nga xam ne ñoo fa jaar daal leen di tasaare ak ay liif ak li nga xam ni mooy bombe lacrymogène li ni mel tax ba am ñoo xam ni am nañ ci ay gaañu gaañu ci yooyu lay xeexoo. te bi ñu xëyee ñëw nañ ci njekk ak teraanga respecté yëpp li ñu waroon a respecté jël matuwaay yëpp ñëw teg suñu ñaari tànt lal suñu basang tëdd jàpp suñu ñàmbur xaar yàlla. police ñëw wàcce seen i arsenal nañu da ngeen di génn terrain bi sànni ñu ay lacrymogène dóor ñu dëggaate ñu ba damm nañ fi ñaari nit. ñu ngi nii di xaar sapeur pompier pour mu ñëw évacuer leen ñu ngi nii tëdd ci tali bi. waaye lii daa mel ni terewul waa collectif bii de deltu ginnaaw si seen xeex bi de suñ sukkandikoo seen kàddu ñi ngi xam le ni tey la waalo a aay dinañ ko ñàkkanteeg nguur gi ba koroog ñuy am ndam ci seen xeex bi de. li fas yéene def mooy waxoon nañ ko Sénégal wax ko àdduna yëpp ñu ngi dëggalaat suñu bopp loolu ñu waxoon tey lañ ci gën a taxaw dinañu tëdd fii ba keroog ñu rey ñu ñun ñëpp suul ñu wala ñu jàpp ñun ñëpp yóbbu kaso su boobaa nag ñu xam ni doole mooy dox ci dëkk bi ku ñu ëpp doole nga xam ne dañ laa ëpp doole li ci des nga xaar yàlla loolooy. collectifu gàddaay bi ñoom ba tey ñu ngi xar seen tàggatuway ngir jot seen kër yi nga xam ne dañ ko daanaloon te mu woon ci promoteur bii di Babacar Fall moom mi nga xam ni dafa am sax mandat d'arrêt waaye tey am nañ jàppandalu kii di Guy Marius Sagna de ki nga xam ni mooy taxawu askan wi ci nekkee ci tolof tolof ci mim réew di Sénégal.